Eh, jërëjëfati mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal di dellu siwaat ak yéen ni ñu ko baaxoo defee saa si seen chaîne YouTube Bio Rahma mbokk yi tey nag dañu daal di indiwaat suñu gaam bi nga xam ne mooy gaam bio sitida xam ngeen ne ndoxu siti bokk na ci li ñu sonal ba saa su ne soo yeewoo nga gis nit ki yaram wi am lu cay feeñ ndax tàmbali woon na ca xasan wa eh, teewu ko lekk teewu ko naan waaye mu jékki-jékki yeewu suba yaram ba commencé yàqu ñu mbir mi jaaxal ko lool bu deful nank yëf yi day évoluer lu mu dégg lu ne mu naan la mu ci jublu mooy wer euh, day dem ay jamono yoo xam ne sax day am jafe-jafe génn ndax daf koy yàqal liggéeyam ak melokaan gi mu am moo tax seen cabinet bi ma indi la benn gamme boo xam ni muy gamme Biocistiderme nee naa la gamme Biocistiderme gamme la goo xam ni ñeenti produit moo ci am muy jar ñaari junni dix mille nga am benn tisane boo xam ni moom lañ tuddee tisane antifongique wax naa leen ko fi lu bari nga xam ne da ngay jël benn litre ndox nga baxal ba mu bax nga fay jël ku dugg ndaw sotti si bàyyi ba mu sedd nga segg soo ndekkee nga naan ci kaas bu mag ak genn wàll soo añee kaas bu mag ak genn wàll soo reeree kaas bu mag dee sa ndoxu siti dafa cronique da nga ciy jël 7 jours noppalu 2 jours wala 3 jours reprendre daal su dee ndoxu siti bi chronique wul noonu boo naanee 7 jours noppalu 7 jours reprendre daal bii mooy tisane bi nga xam ne dafa nekk ci gàmm si biir gàmm bi mu am ñetti saabu yoo xam ni ay savon antifongique moo am ci ñetti saabu yoo xam ni day ànd ak gaam bi saabu yi moom lay nit ki di faratal di ko sangoo ngir mu mën a xeex lu jëm ci wàllu ndoxu sikki ñaareelu tisane bi ñaareel bi muy li nga xam ne moo di crème bi nga xam ne moom lay diwoo bëccëg bi bu sangoo ba noppi guddi gi buy tëdd mu daal di diw ci huile kon donc lii mooy gaam bio city garab kon yow déglu te dañu bàyyi xel soo amee jafe-jafe jëm ci wàllu ndoxu siti daagul nang seet ci ñi cabinet bio rahma ñu daal di la indil suñu gaam bi nga xam ne mooy gaam bio citizen muy gaam boo xam ne ñeenti produit moo ci am nga am tisane am ñetti saabu am crème am huile si ñaari junni dix mille francs ma am sama tisane am sama ñetti saabu am sama huile am sama crème fu muy amee ci cabinet rax rahma téléphone bi 77 244 95 5 ñoo ngi tëngi sona di si wetu pharmacie Arsen kon yow jëlal numéro bu baax bi soo ko ittewoo wooteel si numéro